waaw gars yi salaamaaleykum. non c'est bon dugg ah. man mën naa xam ne fii laa dëkk benn la fii ak kii moom je pense ñi may li may fréquenté fii moo ëpp li may fréquenté fële donc Marème suma sœur la su ma ko su ma bàyyee ay samay sœur yu nekk fee jël ko di waxtaan ak moom bokkuñu duñu politicien ah moom xëy na moom mooy ne politicien la quoi. wax naa ko léegi xamewul ma loolu quoi am na parti ànd jëf la nekk. Eh. man li yënguma ci loolu quoi. Uh-huh. ci développement ngay yëngu la ñu nekk mais dama gis ni mm-hmm. suñu quartier yi balaa beeg si dañaxu boo ko jëmoo membre wu dañu am problème bu ñu cees Thiès chantier Thiès yi amul fenn fu mu romb suñu koñ. kon ñun Thiès li ñu naan Thiès Idrissa Seck defar na ko defaru ko ñun ñu ci parce que tali romb fi. Mm-hmm. lamb bu fi tàkkee dañoo reyante ba mu tàkk loolu lañu gis ni moo mënta wéy quoi. ñuy jël ay yeneen doomu Thiès di leen fi tab parce que fii kenn xamul ban conseil moo représenté woon waa si waa Ndeye ji Cheikh wala waa Cité Niakh ci mairie bi kan moo fi représenté waa Cité Niakh xamuñu ko ñu gis ni loolu dafa war a changé changé bi mooy lan ñun mënuñu fi nekk taxaw di kaas naan politiciens yi defuñu fi dara bis bu ñu wootee nag kat ñu defar dëkk bi ñun ñu toog fay suñu kër naan na politiciens yi dem te élection locale yi koñ la élection gox goxaan la mhm. du élection Macky Sall wala élection Wade wala élection leneen mhm. élection koñ koñ la mhm. sa koñ daa am ku la fay teewal ku mairie bi loo soxla mu koy lijjanti eh, ñun loolu la ñu gis naa la ne gars du ñu ay ay politiciens mais am na lu ñu yàlla may ci wàllum xalaat ci wàllum di doxal ay affaire comme ni ko ma dem waxee di xeex yi parce que man yii dama ko bañ waaye bu muy def yii dafa naa ne ko saa lii nii waroo ko def parce que yoon la mais loo ci mën ko ñi ñuy séparé ay ay ay ay bi ba mu ko doon xeet parce que du yoon quoi par grand yëpp lan lan moo koy loolu loolu Marème rek mënut a toog xeex lii man mënu ma lool man kese kii rek mënul loolu mbooloo moom mooy doole parce que lii gars yi def jël suuf si ba baare fii gars yi koñ bi non non développement bu dul loolu yi tamit tey ni ma ko waxee sànq ku amul ku la représenté ci ci ci instance de décision yi mooy mairie mooy conseil régional muy leneen. yéen a ngi suivre ah. mën nga wax ni doo mën a bokk li xew ci dëkk ci ci dëkk bi te ñun dañoo gis ne à chaque fois mandat yi ñu fi jax Idrissa Seck yëpp day jël ay nit ñi nga xam ne ñun xamuñu leen. teg leen ci bopp mairie bi ñuy doxal dëkk bi ñu leen neexee tey kenn mënta la wax ñu ne ci mairie bi am nga ca mbokk wala xarit wala ak lan lañ ci def ban bilan mairie est bi nekkoon ci casino ban bilan ban bilan lañ ci def lan lañ defal ndey Cheikh lan lañ defal balaade ma ne a ma problème ak kenn jatara ay jël lañ ko ñun dama koy woo may woo mhm. maire maire Sab Diop maire maire est mhm. amoo problème ak kenn politique du rayante quoi politique du du combat wala lenn politique waxtaan rek xam nga mais dañu gis ne ñun plus bi ñoom la ñuy def mairie est-ce kenn amul ku fa nekk man man nga mën def lu ma mënta def marem noonu donc ñu ngi gis suñu koñ bëgg a jàppale suñu bopp bëgg a jàppale suñu waajur bëgg a jàppale en fait jeunes yi nekk il faut ñu dem bokk ci mairie bi loolu ça n'a rien à voir avec la politique mhm. parce que du force da war a nekk politicien a nekk ci mairie bi ay conseil la rek da xool ñi nga mën a àndal boo demee toog sa koñ toog ci mairie ba di teewal sa koñ teewal sa koñ mooy man fu ma nekkee balaabe ka dëkk balaabe waa balaabe jàppale ba ma nekk conseil mais bu amee benn projet biy waaw ah, balaa bi laa laa ciy ah. a laa njëkk laa koy laa koy yóbbu sama koñ la mm. soo paree ma soo ko gëstu waa waa ndeyi seer bay sa mm-hmm. loolu moo tax peut être nit ñi eh, politiciens dañuy nax souvent ah, politiciens yi dañuy nax souvent dañuy ñëw ñoom ne ñoom ñooy ay leader ñu fan ne ku deful politique rek a a mm-hmm. tey mën naa bokk ci benn liste dem ñu fal ma mm-hmm. ma teewal sama koñ donc ci loolu man depuis loolu fan ni ko waxee politique dialogue la politique waxtaan la man xooluma ay parti wala leneen leneen. li may def sana rien avec la politique. Aboubacry Sarr mel ne moom doomu balaabe la 2009 nekkoon na ci élection yi moo jëloon deuxième ginnaaw Idrissa Seck. mu nekk loo xam ni ñoo ko liggéey parce que Idrissa Seck 2009 centre de vote yëpp la gagné sauf balaabe gi waaw ba balaabe waxee di ndamu man leen war leen ndamu parce que du yéen rek ngeen fi voté. école balaa bi du balaa bi rek kese voté ñu bari fi ñu bari fi la voté donc man leen ndam loolu du waa balaa bi kese donc leer ba leen lu mu am na waa ndeji sax ñu bari wala waa waa cité ñax ñu bari ñi nga xam ne nañ Abou Bakri donc ci centre vote bi donc ma rama ba mu ba mu waxee ak man ma ko man man balaa bi du fa battre campagne parce que man boog foofu dee na ba rek waa su may damay génn ay ay ay ay ay ay dem ci ASC dem ci dañax dem bokk jom balaay dem